mu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 allahuma unsur man nasara diin waxsur man xasala almuslimin amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulilahi rabbil alamin alif lam mim innama sabil wala tujadilo allahu min kulli karim akram man amahu qaadalo takram asim lahu kulla kan iman wala simi nihsani rahman wajhu bi sukri bila kufran sukwa insabuhu mahaniran allahumma salli ala muhammadin wa hadabil anfas makhluqat اللهم صل على محمد جحد الأفكار الموجودات اللهم صل على محمد جحد بالحروف له والهوات اللهم صل على محمد جحد بالبدايات والنهايات من المقدوم والموجود إلى أبد الأبد وسلم على خير خلق محمد وآل أجمعين أنت المهيد الذي أبقي بقاء به دنيا أخرى فعبد الحول مولانا تركت ما كان لي بالبيت متقيا ما هند من يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رزاق يا منك الافتح وهب لي واتقني بكن لنا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 nekkan ci suñu xel adduna kon nag sant war na bu baax ndax nekk ci yàlla xewul na ci dara ma xew ci lislaam waxum laa ma xew ci doon suñu tubaab yi nga am ci di yëngu loolu maa ngi mu yàgg loolu ci am ci àdduna yéen ñi dayri bi xëy na ngeen ànd ak moom yéen ñëpp ngeen bokk parce que jublu ci yàlla nañ ko jàppale dafa borom musul ni ci ndox te it nu góorgóorlu baax na ndax sëñ bi li mu nataale mooy liggéey jaamu yàlla benn loo tawee sa borom nga dimbali ko ngeen di yéene te jàmm te rëbbante ay loolu moo de ak taalim di jëfee ndigal di bàyyi tere mu ñaan nag sëñ bi yàlla na jekku ndigal ak addiya yàlla ñuy ay yàlla bu ñu ci gis nu nu góorgóorlu bu baax ci bu yee ndigal sëriñ bi tey moytandi ko ñu gis ni ci tere yi yàlla bu ñu dégg xam ne taalibe moom loolu rek moo ko war bu yee ndigal bàyyi tere te waxkat bay day wax ne loolu ñeenti ajir bi ngay nekk baa juróom moo de jébbalu jàng julli joxe genn waaw loolu moo de ak taalibe jébbalu jàng julli joxe jannatu muy jàng xeet waaw ah. lu góorgóorlu ci tànn bi bu baax te sëriñ bi moo wax ni nit ñi ak tànkam te wàññi ko bu yàggee ñu gis bokk jëmm ko te sëriñ Tuubaa dina xasida yi ñoo di ay tànkam kon bu ci mën a ànd ak ñii ñu aw ci dañu ñaan yàlla sama borom mu ci ndox ba li ngeen liggéey ci xasida yi dimbal am na ci léegi bu baax ndax jàppante am na ci ni mu yombe léegi yombiwul woon njëkk ni daa jàng bi di yuuxu ba boo xaatali ko tosi bu doon dene booba jàppandewul lii léegi lii man boo dee aw rek ma dem ca kaw ba léegi man ma jàpp ne mu ngi mu ngi dox bu baax yenn temps boobu ñoo defal ak jàpp na ñu naan su ñu dafaa nii yàlla na fi yàgg tey yàlla na fi yàgg lool tey li ñu yëngu yoon yi yàlla na ci kaw jaram te naa ànd ak moom moom bu nu daayira ndaw ci néew mu néew bi xam-xam ci nga xam ne am na yoo xam-xam koy doxal ba tax mu yàlla ko yàlla wattu ba mu àggale ko ba indi ko ba sànjaat yeneen te nga ànd ko moom ci loolu Sëriñ Tuubaa sant ñoom ñëpp rek gërëm ñoom ngeen mu nag ko bàyyi foofu rek bu ñu moom ma nekkal ci sëriñ bi nekk suñu nekk lu lépp nekk moom ñu boo nekk mbaa loo lu baax nga waaye loo nekk te bëgg ko def rek loo bi yu bari ah borom njëriñ mbay mi ngay moom yàlla dafa nekk góor ñi gi nefe yàlla na bi eh, ci ànd ak wér yàgg ñu daal di ko barke sëriñ ñaan yàlla ko def at yu bari ci monde bi salaamaaleykum wa ñu ah digal ñu. waaw kooku mooy seen kilifa seen sëriñ ñu lépp ah, Baye Moukhtar Dione nekk bi ah, moo doon yëkkati kàddu loolu ñu koy ziar mbaax kàddu rafet yi bu ko defee ah, rek mu yëkkati kàddu mi tamit. salaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ñuy bokk taalibe yëpp di leen siyaare te di leen ndokkeel bu baax di leen jaajëfal bu baax it ci liggéey bu rëy bii nga xam ne lépp léppi baax rek ñu ngi ci biiram te alquran nga xam ne dañoo daje woon doon ko wàcce ngir ñaanal ay bokk taalibe yi fi nekkoon ba wan nu ginnaaw ñu di leen fàttali ko tey jii loolu ñu ngi ci sant suñu borom bu baax a baax ci tawfeex gi ñu taxaw la ñu mën a teewe loolu kon ñu sant suñu baax suñu borom bu baax a baax tey di ñaanal di ñaan suñu borom yëpp ñaan yi ñu fi def yëpp suñu borom nangu ko te bu ko nangoo mu jotale leen ci yool yool ya nañ ñu rëccu liñ nekkoon ci àdduna suñu borom dool leen tawfeex bu baax a baax a baax di sant ki nga xam ne nag moom ci boppam moom moo wootee lii muy sëñ murit na muy koo xam ne dafa bokk ci noonu doon koo xam ne kon xam ci ak mbaax la xam ko ci pas-pas xam ko ñu ak bëgg lu baax muy fàttali ko ay waajuram di leen ñaanal ndax waajur wu nekk la ñaan mooy doomam mujj ko ci kaw foofu di ko ñaanal kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi day wax ne ñaan dana jariñ dana jariñ ki nga xam ne dafay dafay bàyyi ko wuy ji boroomam waaw ki koy ñaanal it maanaam dana dana ci am ak yoon ak yoon ko bóor wa yan faxul ayi wa yujibul ñaan dana jariñ ñëw ji nekk ci biir bàmmeelam ki koy ñaanal it suñu nag mu nekk ci tawfeex di ko ñaanal moom dana jariñ dana waral ci moom mu am ak yoon ñi fi bàyyi ko li ñu gën a bëgg mooy ay ñaan kon ku leen di ñaanal rek na nga rafet njot ne soo fan dana gudd ndax ñoom dañ lay ñaanal ñu ngi leen di bàyyee xam ne dañ lay fàttali ko yéen dina ñaanal ngir nga yàgg ci kon li leen defal lii am na solo lool kon yàlla nañ ci suñu borom saxal te nangul leen lépp rek di ñaanal euh, ñi nga xam ne moo woote lii di ko def ak bokki taalibe yi bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ko àndal ñu doon ay mbokkam ñu ànd ci pas-pas ak bëgg sëriñ bi ak nangoo womatu ci moom ba suñu borom boole leen ñu bokk génn bum di xàccaloo di dóorandoo loolu ñu ngi leen di ñaanal baax nekk rek mu defal la la lu kaw sa ba li nga yéene ci liggéeyal sëriñ bi mu yomb la lool borom dañ koy jaam eh, ci eh, ni mu santaanee waaye nag sëriñ bi dañ koy liggéeyal dañ kon eh, nan sax ci loolu bu baax a baax di ci soññi sunu bopp rek di ci sonn di ci soññi yëpp rek ni ko suñ mataar waxee rek noonu rek la daanaka doyoon na sëkk xanaa lii ay kàddu yéene rek la waaye nag noo ngi ñaan daal li ñu fi dajale mu ngi ñaan yàlla na suñu borom nangu ñaan yi te bu ko nangoo mu tisaare ko ci mboolem jullit ko fi bàyyi ko rek suñu borom defal leen tawfeex defal ko te bàyyi te bàyyi na fi ñu itam ñu sax ci di leen ñaanal ndax kenn ku ne rek loolu ngay ñaan dem ba am ku la féete ginnaaw di la ñaanal di la yónnee ay ñaan kon loolu am na solo lool ku koy def tuyaaba tuba tuyaabam kenn xamut nu mu toll ñoo ngi sant Baye Aliou mii nga xam ne mooy borom kër gi ak sëriñ Yuusu ak mbokki taalibe yëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax di wàcce kàddu kàddu gi foofu rek ndax xataayu waxtu bi ndax fi mu ne jot na kon noo ngi eh, yamale yi foofu rek ba ca kanam a kanam kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa Fallu mën nga sa kaanaaw mën Fallu yaare yi mbir billaahi yaa mën góor ñi yàlla mën nga sa kanam baayam mën nga sa ginnaaw sefal yaare mbir billax yaa màgg màgg leen suñ fali la mën nga sa kanam mën nga sa ginnaaw suñ fal yaare mbir mooy baayu alaaji baara mën góor ñi yàlla yaayu alaaji baaraamu man bu sopp man nga sa man nga sa ginnaaw sëñ Fallu yaare yi ndi mooy baayu alaaji baara man góor ñi sa kanam baayu mbéy sa ginnaaw Seex Falla alaaji baara waaw waaw magal ndaayam di wàllu yaa himaama may di jaayal ndeyam di wàllu yaari maam borom bi ndee baax ndeyam di baayam baayam mooy di jaayal ku sopp sëriñ Fallilu wàllu ndeyam di wàllu di baayam baayam mooy di jaayal sëpp sëriñ Fallu sax la ko ca kaw ndayam di baayam baayam magal leen sëriñ Fallu la wax xalifa day jubboog borom mi doole sariixatug xaqiiqatu lay boole auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah jërëjëf sëriñ Saalix jërëjëf sëriñ Saalix mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi waa xidmatul xadim mu ngi leen di ziyaara bu baax Euh, di leen ñaanal jàmm ak tawfiix waaye tey ñu doon ñu ne ci bisub euh, soppi Serigne Mouride euh, ñu taxaw ak Baye bi nga xamante ni moom mooy mooy Baye Fallu waañ bi itam di ko moom ci wàllu liggéey bi nga xamante ni moom la jiite moom waañ bi naka lañ ci doxee ak naka lañ moom liggéey bi nu nu nu muy taxaw ak nuñ koy waajee ñoom Baye Fall bi moom moo jiite waañ bi ci wàllu góor yàlla yi. waaw auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidina moolana muhammadin wa ala alihi waa sahbihi wa xadimi wa salama taslima jërëjëf sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou waaw joriñ maam Thierno ñoo ngi siyaar bu baax di siyaare waa daara ji yëpp di jiite ci siyaar bi sëriñ Mouhamadou Mountakha bu sëriñ Bassirou sëriñ Touba suñu borom yàlla ko fi loolu tam ànd ak ci barke Seexul Xadim moo toogee jotaay maam Saliou Xadim war di seere kilifa daara ji sëriñ Bay Fay waaye ko mel ni seen naal yow doog ak Bay Fay yi féet ak ñoom yëpp ak soxna yi ci daara ji yëpp euh, ne gi maanaam daal lëkkalee murit yi nga xam ne dañuy jaayante pour pour ànd ak sëriñ bi loolu mooy kuréel xidmatul xadim man Baay Faal bi nag ñu daan may nga xamante ni wax dëgg si yàlla ñoo féete ak waañ wi waaye nag di ci gërëm bokk yi xam ne ñoo nekk bi xam ne bañ duggee ci wàññi dañ bàyyiwu ñoo wàññi dañoo jàppale ci liggéey bi waaw ñu ngi leen ci gërëm sant bu baax a baax waaye di sant soxna yi nga xam ne mooy soxna waa kuréel Xidmatul Xadim bi ndax wax dëgg si yàlla takku nañ bu dëgër ñëw ngir liggéey bi wàññi nag ni muy doxee mooy wàññi nag ni muy doxee mooy euh, wax dëgg si taxaw liggéey bi rafetal ko te nekk te mu te mu dëpp ni ko borom ni ko borom bëggee ndax wax dëgg si yàlla kuréel Xidmatul Xadim troisième édition bi ci ren waa dëgg wàññi musul am benn sikki bu ci ne wax dëgg si yàlla ñu ngi koy liggéey nu mu waree te ñu ngi ciy dox nu mu waree kon ñu ngi ciy jaajëfal soxna yi ci dëkk bi yëpp waaye di ci jaajëfal soxna kuréel xam ne doxee ndax ay jàmbaar lañ li wàññi we nag wax dëgg añ euh, togg nañu def nañu laax yi ba pare ba nit noppi waaw ñu ngi nii jublu ci añ yi xam naa bu ñu noppee ci añ yi daan di jublu di jublu ci reer wax dëgg liggéey bi ni mu doxee nii wax dëgg si moom bu ñu continuer moom incha allah dina am tawfeex jërëjëf moom Thierno ñu lay sant bu baax di siyaare euh, wax dëgg si kii nga xam ne moo wàllu caméra bi di ko sant ba di ko gërëm di siyaari ñëpp waaw liggéey bi ñu ngi ci ànd ak euh, ndeysaan euh, ji nga xamante ne ñoom la ñu féetee waañ wi parce que ñu ànd ak moom di ku ci mel ne Cheikh Dia Cheikh Rama Dione xam naa léegi mu yëgsi waaye ñoom soxna dee Fay nga xam ne wax dëgg seen liggéey bi boo ko nee dañoo takku rek jaayante ci liggéey bi waaw ñu ngi ciy jaajëfal waaye soxna yi nga xam ne ñoo féetee dëkk bi ñoom keddu ñoom ndax wax dëgg seen bi ñu xëy suba ba léegi ñu ngi ñun ci wàññi bàyyiwuñu kon liggéey bi nga xamante ne ñu woote kuréel Xidmatul Xadim soppi Serigne Mouride Dione waaye képp ku dund ci biir lexaar yaa ngi dund euh, Serigne Mouride ci sa bopp waaw Serigne Mouride nag def na ci dund wi boo xamante ne ku dund ci lexaar wallaay boo xoolee ne sa ci yow moo tax lexaar gépp takku ànd ñëw ànd ak ci liggéey bi waaw ñu ngi jaajëfal di sant ñëpp waaw jërëjëf euh, Baye Fall bi am na solo la kàddu am na solo baax waaye di leen laaj rek maanaam ndax euh, ay soxna fu ñu dajee wala ay góor yàlla fu ñu dajee fu xëy na jàppal bàyyi ndax du ci ñàkk ndax soxna kenn ku ne xam na euh, ñoom seen biir ndax loolu moom am na seen euh, waañ bi wala déet waaw ñun de yàlla tawféexal nañu ndax soxna yi biñ ñëwee daa mel ni sëñ bi na dëxëñal boppam ndax nañoo ñoo ànd ci wax dégguñ ci coowaloo dégguñ ci xëccoo ñu tënku ci génn kàddu koo ci ne bàyyil mu bàyyi koo ci defal nii mu def wax dëgg si yàlla soxna yi ñu ko liggéey ci ni mu waree ni ñu ko jàppee ne bu ñu ci gis bu kaw suñu jot te lii la ci borom bëgg ndax jëruñ suñ mbay ba may woo di ma dugal ci waañ wi mm-hmm. wax dëgg si yàlla dafa ñëw tagal ma sarde yi mm-hmm. mm-hmm. bi ma ñëwee tegal ko soxna it ñu ngi ci te waa dëkk ba ñëwee it dañoo ànd di diglu ñi nga xamante ñoo indi liggéey bi wax dañoo ànd ceeg ñoom waroowu ñoom ci ay kaddu itamit te kaddu yi wax dëgg si yàlla tak lëkkaloon doon benn ba ñu ngi ci liggéey bi waaw jërëjëf Baye Fall na solo lool jërëjëf waaw kon maraton oxra incha allah waaw jërëjëf euh, kon ñu ngi taxaw ak euh, jëwriñ yi soxna yi mooy soxna Ngoni fay moom mi jiiti liggéey bi mook soxna Rubba euh, ak soxna Ndeye Kuma Thiaw ñoo jiiti liggéey bi waaye ñu ngi taxaw ak soxna Ngoni Faye di ko laaj liggéeyu waaj mi maanaam fuñ ci toll ak taxaween maanaam nuñ ko doxalee ñoom auzu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yeneen bi salaa alayhi salaam ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox nuyoo bi jëwrin bi nga xam ne mooy jëwrin mag bi teg ci loxo sëriñ Mour Dione borom kër gi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di gërëm mbooloo mi soxna yëpp ak jëwrin yi nga xam ne ñoo ne ci waañ bi mooy jëwrin soxna Ndey Kumba jëwrin soxna Rubba ak yeneen soxna yëpp ndax liggéey bi wax dëgg fa yàlla ba mu tàmbalee ba léegi amuñ ci benn jaxle-jaxle amul problème amul jafe-jafe tamit macha allah ndax bi liggéey bi commencé ba léegi ku ci nekk yaa ngi ciy def sa doole ak sa yéene ak sa mën-mën wax dëgg fa yàlla depuis démb ba tey fan yëpp presque mën naa la wax ne bi euh, liggéey bi commencé presque ça fait une semaine chaque jour ñoo ngi jokkoo di déggante ak jawriñu góor yi ak jawriñu jigéen yi pour xool ni ñuy régler situation waañ bi ak ndugg beeg yëpp macha allah kontaan nañ ci te liggéey bi depuis ce matin ba léegi ñoo ngi ci waañ bi te waañ bi amul benn loo xamante ne yeex na ci waañ macha allah ñoo ngi ci lépp amul werante jawriñ yi li ñu wax soxna yaa ngi ci buñ lu waaye sant nit it du ci gis boppam ñoo ngi liggéey bu baax daal macha allah daal lépp daal tegu na ci yoon taw feexe na. Hmm. jërëjëf waaw dina laaj fu ngeen ci liggéey waxtu yu nekk nit ñi. waxtu bu ñu toll nii de instant bi ñu ngi ci wàcc ñu ngi ci wàccaayu añ ndax añ yi tey nañu ba sóor fu ñu toll nii def nañu kaamir bi wàcce nañ ko togg nañu laax yi pare na bi laax yi pare instant yi ñu ngi ci añ te commencé nañu reer yi ndax yaakaar naa bés bi niñ ko doon waajee ak niñ ko bëggee woon yaakaar naa la doxee ba léegi daal amaguñ ci njumte ci li ñu gis ci waañ bi d'après bi ñu nekkee ay jëwrin di contrôler di jiite ba léegi daal gisuñu loo xamante ne jaaxal nañ ci waañ bi dëgg fa yàlla soxna yi déggoon nañu macha allah te li ñu santaane woon ci bés bi it ngi koy def mooy coleen bi ak waxeen bi ak déggeen bi ak giseen bi ak wax dëgg fa yàlla ku ci nekk ba nga ñëwee it summeeku rek nekk ci waañ wi ñu gërëm waa dëkk bi yëpp nag soxna yëpp suñu yaay yi fi nekk suñu maam yi suñu umpaañ yi suñu bàjjan yi ndax biñu ñëwee ba léegi ñoom dañu dalal ci jàmm dalal ñu ci salaam ñu ñëwee ba léegi ñoom lépp lu ñuy def dañ naan laaj leen jëwrin waaj bi ñu laaj na ñu yóbbu ko jox leen ko bu ñu war bu dee lépp loo xam ne ci cin la jëm tamit dañ jox leen ko ci njekk ak teraanga wax fa yàlla bi ñu duggee ci waañ bi daal ba léegi lu ñu metti dëkk bi ñu fi duggsee dañ ñoo recevoir dëgg fa yàlla yaatal ñu ubbil ñu néeg yëpp wàcca lal yi jox ñu ubbi néeg yi jox ñu wàcca bassan yi jox ñu jox ñu sées yi wax dëgg fa yàlla amuñu dara loo xamante ni jaaxal nañu fii ci bés bi daal bi ñu dooree ba léegi wax dëgg fa yàlla kontaan rek lañ def mbégte te bés bi yàlla nañ ko yàlla jàppale ñu yeggale ko ci jàmm waaw ci barki liggéeyu sëñ bi rek te sëñ bi rek la ñu wax moom la ñuy njëkkee moom la ñuy mujjee bu soobee yàlla yàlla ñu yàlla doole jàppale te suturaal ñu sàmm ñu aaral ñoo ñi fi nekk ak gan yi ak ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp macha allah. jërëjëf soxna Ngoné Faye kàddu yi am na solo lool waaye li ma ciy dolliwaat rek mbaam nekk njiit dafa metti lool te dafa jafe Ah, di la laaj maanaam ndax yow amoo ci ay jafe-jafe ci waañ mi nii fu mu toll ndax kenn ku ne xam ne njiit moom ah, lu ne ngay jàngantool lu ne ngay dégg waaw amaana ñeen ñi boo waxee xëy na ni ngay gisee ak ñoom nu ñu gisee ñu bokk du bokk waaw loolu yëpp di ci laaj moom ndax oh, amoo ci benn jafe-jafe ci waañ mi nii waaw damay doole santaat yàlla bu baax waañ bi amoo ci benn jafe-jafe wax dëgg fa yàlla jox nañ ma sama cër te liñ ma cëral it xam naa fañ fa ma ko war a defee ndax bu dee koo xamante ne mat la la yaay dafa am nooy wax ak moom ku la mat mag nga am nooy wax ak moom ku mat rakk am nooy wax ak moom mooy respect bi ak discipline bi rek saa su ne daal boo ko jiitalee rek doo am benn jafe-jafe yaakaar naa loolu daal buñ ko defee taw féex rek la am ci waañ wi ba keroog bés bi di jeex taw fee rek mooy dal waxeen bu ne te mu mu xaw a am mu am respect daal cër mooy cër bi daal saa su ne na mat même bu doon xale bu ndaw la sax am na nooy waxee ak moom day gis boppam waaye waañ bi ñu duggee ju léegi di bi ñu commencé liggéey bi loo xamante ne métti nañu te kan war nañu kanam boo xamante ne boo ko ne defal changé kanam wala am neneen nu mu ko gisee yaakaaruma ko de gisaguma ko nag peut-être mën na am doo ko xam waaye yaakaaruma ne am na fi sax ndax lu waaye di def laajte ñu wax la te da ngay nangu kon yàlla ñu yàlla doole rek ñu mën di nangu saa ne rek waaw gën a yaatal xol yi ne rek jërëjëf soxna ba am na solo ba jërëjëf kon bismillahil lazil qur'an bi